mais également di nuyu le président de l'ASC bi nga xamante ne tey ñëw na toog jëmbal bis bi di sama Samaké ànd ak sama frère bi nga xamante ni moo ñëw toog euh, ànd ak moom ci bés bi di wax ni rek kàddu yi ñu fi jël rafet na mais ñi tax tey ñu dugg fii ñi tax tey ñu ñëw mbambara Adilo polarisé jàmm gën guy sombel ñëpp ñi nga xamante ni tey ñoo wër bi ñëw nañ teew te ñu tax ñu teew mooy ce sont des personnes de valeur ay nit ñu am pas-pas mais également ay nit ñu respecter seen engagement jiital ji sunu frère sunu xarit sunu sympathisant mais également suñu di monsieur Omar Sow di ñaan ngeen tàccul ma ko dinaa ñëwaat dinaa ñëwaat ci moom mais également di nuyu sama frère sama xarit sama genn wàll monsieur Talla Dieye di jàmbaar di dinaa ñëwaat ci moom su ma leen nuyoo nuyoo naa waa gox bi yëpp nuyu ñi nekk seen gannaaw di ànd ak yéen di leen liggéeyal muy ay fam de valeur femme yi nga xamante ni jël nañ fi kàddu seen wax dëgg nañ ko ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm ndax tey ànd bi rafet na te la ngeen waxoon def ngeen ko mais di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa àndal la délégation du mouvement Siggi Jotna ñoom ñëpp ñëw nañ taxaw accompagner le président de la euh, le président du, du mouvement Siggi Jotna di le président Abdoulaye Dièye ndax tey suñu ñëw fii cofuñu ko ndax nit bu la wanee loo xamante ni en un record la ko def donc loolu booy ñëw da nga koy préparer ndax ba ngeen ñëwee sept ma dama leen a booleeg sama proche collaborateur di monsieur Pape Ndiaye Codé en passant ñu ngi koy féliciter di ko remercier ndax liggéey bi nga xamante ne def na ko moom moo ma motiver ne kat ñële kat yéex nañoo am ñu mel nii ndax jour bi mu fi ñëwee wan ngeen ko loo xamante ne en direct la ma ko doon wan ndax lépp dama koy suivre dara du ma du si li nga xamante ni moom lañ may liggéeyal donc ñu koy remercier moog le frère Cheikh Sène liggéey bi rafet na ak sunu frère Moussa. ànd bi rafet na liggéey bi aussi am na sincérité mais également am na qualité donc euh, di nuyu aussi animatrice yi way yi neex na tëgg yi neex na ndax lii aussi euh, si meeting la bokk des fois foog ñu xumbal foog ñu neexal donc euh, mbir mi dafa ala dawme ndaxte lépp neex na lépp rafet na di wax ni rek tey suñu teewaay fii dafa am ñu ko waral muy suñu frère yi tey engage wu pour accompagner le président Abdoulaye Dièye président Abdoulaye Dièye nag ku ko xam xam ko ni dafa am une vision vision bi nga xamante ni mooy tax ñu bokk ci euh, les hommes de valeur yi nga xamante ni ñoo war a développer suñu gox ndax politique nit ñi dafa am noo xamante ni noonu lañ ko dàkkantel woon mooy politicien politicien nag dafa am définition mais aussi politique dafa am définition gis-gis bi ñu am ci politicien baneen gis-gis la ñu amoon ci ñoom mais nag peut ñoom ñoo ko liggéeyoon ba askan bi di leen catégoriser wax loo xamante ni duñ ko def walla teg askan bi comme ay escalier bu ñu amee li ñuy am ba pare ñu toog fàtte askan bi mais tey je pense que ñun dañoo ñëw changer la forme de faire de la politique wax askan bi dëgg wax askan bi nii dañoo bëgg ñu ànd ñu liggéey ñu am projet de société pour mën a am légitimité mais également am la légalité d'agir au niveau de nos communes ndax tey boo bokkul ci instance de décision locale yi sama responsable des femmes wax na ko doo mën a am la possibilité mais la légalité di agir ci communes yi donc nag moo tax ñu jël suñu courage en main nekkat Thiès war na mën a am xar kanam bu bees rupture war na mën a am mais également changement de paradigme war na mën a am te loolu duñu xaar kenn diñu ko defal ñun waa Thiès ñoo war a xool yan personne yu gëm Thiès yu bëgg Thiès yu yërëm askan wi yi nga xamante ni taxawu jigéen ñi moo leen ñor taxawu ndaw ñi moo leen ñor ñu mën leen dénk seen i gox parce que nag ñi ñu dénk vraiment ils ont atteint leur limite donc nag heure changé jot na heure teg fi ay yeneen nit yu bees jot na te nag dañoo jëm ci ay élections yu am solo muy ay élections locales wax ngeen ko bi ngeen def seen yi nekkat seen gox bi di fi manqué bari na am ngeen problème mu évacuation des eaux donc loolu je pense que ni c'est le rôle du maire même tey man su ma jëloon la responsabilité ñëw ni dama leen koy defal du ma mën a am euh, euh, l'autorisation la légalité de le faire mais nag luñ ci mën taala lancé na ma un appel euh, pour que seen problème mooy problème aigu et je pense que ni nag loolu réglé wul def ko si seen gox bi rek réglé wul problème bi dafa war a nekk un programme boo xamante ni c'est un programme pour tout le quartier parce que boo defaree benn côté rek bàyyi beneen côté bi le problème restera intact te loolu responsabilité bi maire bi la moo tax tey ñu jël suñu courage en main nekk ñun ñi nga xamante ne dañ lañ fay dénk ñu tële defuñu li nga xamante ni moom la leen fi askan bi to euh, teg dañ leen fi bëgg a jëlee changer xool ñi nga xamante ni ñoom lañ fi war a teg ñu teg leen. loolu nag yéen yéen a ko wax yéen yi ni président Abdoulaye Dièye la ñu yaakaar si mairie bi. man de man kese de mënumaa yegg foofu yéen rek laa am mais aussi pas-pas rek laa am mais yéen askan wi yéen population bu ngeen soxlaa wax ñu ñu jóg ànd ak yéen si li ngeen bëgg mooy nee ngeen président Abdoulaye Dièye moo leen doy si seen mairie Thiès Est bi président Abdoulaye Dièye nangul na leen ko ndaxate ndaxte gëm naa ni am naa projet de société boo xamante ni am naa programme boo xamante ni su ma ko tegee Thiès changement dina am parce que dëkk nag da koy dénk ay ndaw yu am eh, pas-pas ay ndaw yu am conviction ay ndaw yu am am abnégation pour un développement local parce que euh, la philosophie du mouvement Sidi Dionna c'est agir localement avec une pensée globale donc ñëpp lañu soxla seen xalaat pour ñu mën a doxal sumu dëkk parce que dëkk kat bu nit ñi jàpp rek politique yi ñoo ko war a doxal politiciens yi ñoo ko war a doxal élection yi ñu jëm élection gox-goxaat la ku nekk sa gox am nga fa loo xamante ni soxla nga ko fa ku nekk sa gox am na loo xamante ni manqué na ko fa ku nekk sa gox am nga loo xam bëgg nga ñu defal la ko donc tey yéen war a jóg nekkat war nañoo ñëpp ñëw jàpp si jàpp si élection yi pour que ñu mën a jëmal seen gox parce que maire yi am na responsabilité dimbali ASC e. maire yi am na responsable dimbali association bu nekk su koñ mairie dafa am responsabilité dimbali jàkka yi nekk si koñ bi mairie dafa am responsabilité euh, agir ci école yi mairie dafa am responsabilité agir si mouvement de famille si ñu gox yi mais est-ce que mairie aussi dafa am responsabilité jàpp ci poste de santé yi mais est que loolu may wax lépp maire bi fi nekk jàppale leen si donc je pense que ni ça set problème boo xamante ni war nañ ko xoolaat xam ñan la ñuy dénk nañu dénk ñoo xamante ni la ñu am doy na leen mais boo dénkee koo xamante ni euh, mu ngi xool lu ko maire bi di jox kooku je pense que nii boo ko dénkee boppam lay njëkk a xalaat mais aussi nit boo koy dénk day fekk mu am vision day fekk mu am xam-xam damay euh, euh, des fois ñu ñooy indil suñu bopp problème parce que issue nit booy koy dénk dafa am profil boo xamante ni moom lañ war a dénk ñi nga xamante ni ñoo ñuy jiite ëllëg mais day dénk ñoo xamante ni amuñu xam-xam. amuñu expérience amuñu ouverture internationale amuñu ay partenaires je pense que ni loolu ñu ñooy tooñ suñu bopp parce que mairie kat ay recettes municipales kese du ko doxal mairie budget du ko doxal budget mairie mënul lu dul régler le fonctionnement euh, de la mairie xool ñi ñi ñuy fay ay salaires rek ainsi de suite mais mairie dëgg dafa war a am porter un projet de de société dem wuti ay partenaires mu wuti dem renforcer la coopération internationale wut ay partenaires yoo xamante ni dinañ ñëw fi investir te ñun loolu dafa bokk suñu programme suñu programme phare bi ñu am mooy créer un domaine industriel à cees Thiès Est bi bëgg nañ fi teg domaine industriel boo xamante ni ay entreprise ñoom ñooy ñëw investir si biir Thiès Est parce que Thiès nag nit ñi dañ nit ñi dañoo jàpp ni Thiès amul ressource mais Thiès li fi nekk si ressource dafa bari surtout les ressources minières fii am na gaz am na potassium am na calcaire am na phosphate am na am na lépp loo xamante ni ressource la boo xamante ni nit ñaa ngi koy jël di ko payer di ko yóbbu loolu tey population bi ñoo ko war a bénéficier te loolu bu ñu amul ay maire yu am responsabilité ay maire yu am gëdd ay maire yu am xam-xam loolu duñ ko mën a delloowaat population bi te loolu aussi foo nga am euh, pas-pas am engagement dem wuti ay partenaires ñu ñëw installé ay usines installé fi euh, développé fi industrie pour que cees ndaw yi mën a am liggéey te le problème maintenant c' est l' emploi des ndaw yi dañuy jàng ba pare te amuñu liggéey sunu yaay yi bu ñu demee bay euh, wut ay activité wut ay formation c' est parce que amuñu doom yoo xamante ne ñoo jël relève bi et que loolu je pense que ni du développer réew euh, jigéen ñi di cotiser ay cent francs ay mille francs ainsi je pense que loolu du développer réew suñu yaay yi seen doom yi ñooy seen problème parce que ndaw ñi amuñu lu ñu liggéey mais nag loolu je pense que ni war nañ ko mën a développer l'Afrique ñun africains yi dañoo war a bàyyi xalaat ni rek lépp dañ koy jéggaani indi ko fii Afrique richesse bi fi nekk amul si yeneen dëkk yi amul en Europe amul aux États-Unis ñoom au contraire ñoom ñooy ñëw jël suñuy ressources yóbbu ko jël suñu matière grise yóbbu ko def ay transfert de compétence mais également def ay transfert de connaissance et loolu aussi maa ngi ñaax la diaspora euh, les Thiessois yi nga xamante ni ñoo nekk si biti nañu ñëw delloo si seen gox def retour à la base ngir ko ñu mën a xam ni suñu gox ñoo ko war a développer suñu dëkk ñoo ko war a développer état kese mënul def lépp donc ñu ñaan les personnes ressources ñi nga xamante ne am na lu leen yàlla may nañu retourner waat à la base école yi surtout école primaire yi am nañ ay jafe-jafe état bi mënu ko defar maire yi mënu ko defar mais am na ñoo xamante ni école yi ñoo leen formé tey eh, eh, tey ñu nekk ay nitu daraja am alal nañu delloowaat si école primaire yi école primaire yi am mu ngi si en état de délabrement total te loolu aussi vraiment war nañ see taxawu ndax ñu mën a am ndax ñu mën a am euh, une éducation de base suñu élèves yi mettre leen daal de très bonnes loolu nag li may wax rek ku amul vision doo ko def parce que maire yi war na yoo am ay partenaires yoo xamante ni ay ONG yoo xamante ni nañ leen accompagner ndax école yi bu mën a nekk ay école yu baax sur le plan santé gis nañ fi poste de santé yi donc récemment demoon nañ visiter poste de santé bi nekk fii euh, euh, fii de ñax donc gis nañ jafe-jafe yi nga xamante ni poste de santé yi am nañ ko donc je pense ni ñun li tax ñu ñëw mooy am vision am xalaat am programme boo xamante ni moom la ñuy toxal pour que Thiès mën a jëm kanam ku jàpp ni dañoo ñëw pour wut daraja wala ku wàcc ni dañoo ñëw euh, pour am dara je pense que ni loolu tax ñoo jóg li ñu tax jóg mooy un développement local parce que dëkkkat bu waree dox à base lañ koy doxal donc nag Thiès tey du ñu nangooti kenn di ñu choisiral suñuy maire Thiès du ñu nangooti kenn di ñu wax fii ngeen yi jaar mais aussi Thiès duñu nangoo di kenn mu ñuy xeexloo parce que xeex aussi dafa jeex Thiès a été toujours taxé de ville rebelle de jeunesse malsaine nguur gu fi ñëw ñu xeex la projet boo fi amoon nga yóbbu ko ci beneen dëkk moo tax ñun on partage la vision du président de la République nous nous supportons nous accompagnons le pouvoir central que pour l'intérêt de Thiès pour que projet yi mën a ñëw fii jigéen ñi mën cee gis seen bopp ndaw yi mën cee gis seen bopp li may wax rek mooy maa ngi jeexal di wax ni Euh, nit ki bu dee da nga koy jàppale da ngay euh, koy jàppale ak conviction da nga koy jàppale ak gëm-gëm neex na trop ñu taxaw fii ne Ablaye Dièye yaay nekk maire mais aussi nit boo koy jàppale day fekk euh, la mu bëgg nga mën ko see taxaw mooy am carte électeur pour que élection yi bu ñëwee nga xool Ablaye Dièye fan la bokk nga dem ànd ak moom te ñun suñu gëm-gëm mooy être tête de liste ci coalition bu ñu mën a bokk pour que ñu mën a xam ni Ablaye Dièye sera maire te loolu yéen askan bi yéen ko mën a def donc ànd leen euh, duggaat si nit ñi waxtaan ak ñoom sensibiliser leen te xam ne suñu projet social bi ñu am seen intérêt kese la du ab Ablaye Dieye mais intérêt Thiès bi yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di di gërëm waa koñ bi di waxaat encore félicitation à monsieur Talla Dieye félicitation à monsieur Omar Sow